bismillah bismillah inna wali yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah day organe borom yéen kaay moo ñëw indi suñu lamb samedi avril 2020 nii la demee gannaaw ñetti at ba mu toogee feebar moom Balla Gaye mer na wax lu lool lool lool moom la gën Reug Reug ñu dem fenêtre yi comme suñu lamb nu mu koy defee saa su gannaaw suñu lamb bii ma tiim nii ba mu génnee nag xam na ne moom Matar Ba Lassane kii di Alioune Sarr moom mi nga xam moo ne Mbaye Jacques Diop di chargé a wóor ñoom mbëri yooyee mbëri nekk axlu lamb Sénégal yëpp ku la ci réer dama seet ko Instagram temps Instagram bi lañ jël de waaw waaw quatrième phase ñu dem Cobra 2 bu mbooloo gannaaw ba mu toogee ñaari at bëriwul suñu lambay xam ne nañ toog boobu nag muy xaar est que du découragé parce que yàgg na lool lool lool moom Cobra 2 champion Pikine mbooloo pénc dañu frontière waaye dama naan ñolmet biir Gambia wax leen seen combat ba taxaw na yéen waa péncum lamb Gambia building Boy Balla Jamaïcain borom jam production moo fa jar waaw combat social la diggante Leket bu baar a France bu Banjul gëm sa bopp moom Jamaïcain moomee ma nga yëgle de nee na combat bi dàq naa ko ba juillet lu waral loole xam ngan ko jarul laajte Covid 19. c'est que ñu dem. rëg-rëg doone papa kan bi rëg-rëg doomu caaro bi gannaaw moom tafaatin xoolu ko xoolu ko Sathiès Yékini Junior ña koy njuy nag di ko njuy ñu ne moom rëg moom mi ngi ci kaabu doy waar mi ngi ci kaabu critique porte yom bëggoon jaay yëpp ma ngay fermé wu de ma ngay fermé wu ndànk ndànk ndànk sixième pas ñu ñaari final dem jël ñaari yëpp ñu ne saison daaw dara neexu ci waaye saison ren bii ah dal na ci de dal huit cent dix la def Balla Gaye 1 ca géejowaay gannaaw ñetti at ba mu ko toogee feebar nag moom Balla Gaye 1 mer na de mer na waa axlu làmb lool lool lool lool nee na gisuma kenn kenn kenn koo xam ne yëkkati nga sa petit doigt def ko li nga xam mooy sama feebar waa axlu làmb dañ maa bàyyi complètement waaye nag lii mooy àdduna lii moo mel noonu boo boo wéree péng péng péng ànd ak nit ñi nekk ak nit ñi waaye boo feebaree nit ñi abandonné bàyyi la dootuñ la sax reconnaître comme doomu aadama ma ne suma tànk yi day neewi suma tànk yi day neewi neewi neewi neewi oho

nekk nii nees la balande Lansar ñu ne nees nag ah gannaaw bu mu jógee ci defet ci kaw Sathiès mu ngay tegal année blanche nag année blanche yaa ngay ñëw rek mënul fexe ba bëre ñu ne dafa taxaw de taxaw gu doy waar taxaw gu dangereux la taxaw est-ce que du ko côté cher jalgati la mu comme ni nga defee saa ne jalgati la mu tey kan moo fa nekk dëgg Tafa Gueye le deuxième tigre de phase Moussa Gningue ma nga noonu may séddee ak bat géwél ba nag ma ngay tëgg moom Moussa nga koy sotti sooru moom Tafa ma ngay wax nee na maay deuxième tigre de phase j'attaque je cogne et je gagne yéen a Info mi ngi baal ñëpp ak di baal ñëpp ak di wax chahru ramadan bi ñu dugg yàlla suñu borom saafara lépp feebar bi lëmba àdduna yàlla ko suñu borom bi dàq balaa ñoo génn ci weeru koor bi seen doom day organe moo fi